Matthieu saar juróom ñaar. fan ginnaaw gi yéesu àndoon na ak Piyeer saak ak Yowaana rakkam yóbbu fu wéer ci tund wu kawe lool mu soppeeku fa seen kanam xar kanamam di melax nib jant te ay yéreem weex ni leer naka noonu ñu gis yonent yàlla Musaa ak Iliyaas di waxtaan ak Yeesu